ñu ngi préparer lu mel noonu pour nit ñi mën a xam tamit ne il est l'heure de travailler l'heure de travail a sonné et tout le monde doit se réveiller pour travailler parce que nekk na groupe de presse boo xam ne amatul lu muy prouver ci Sénégal euh, objectif am mooy fexe ba jéem a raw li nga xam ne moom mooy euh, ca Afrique dalee ko ci Afrique du Sud ba ci Afrique du Nord est ouest ñu mën cee jël pays leader en Afrique soog a mën a joganteeg nag ca Europe ak États-Unis loolu mooy objectif bi moo tax moom Youssou Ndour nee na euh, li nga xam ne mooy message mu ci bàyyi xel ci coolu yëpp mooy nañu liggéey te bàyyi caaxaan bi ndax récréation jeex na léegi daal mooy liggéey ci nii war a ci nele parce que moom noonu la def ba taxaw lii kon ñun tamit dañu war a liggéey pour suñu ay doom bu ñu ñëwee ñu mën fay nekk ndax boo xoolee ay su yu mel ne Sonatel ak yeneen yeneen seen ay doom ñoo fa nekk ndax seen papa fa nekkoon liggéey ko tey ba mu taxaw mu nekkoon OPT di office des postes et télécommunications tey mu dem nag ba nekk Sonatel ñun tamit ñoo war a liggéey pour suñu ay doom mënu ñoo donn xam ne seen papa yi fu ñu nekk dafa fiable am sécurité kon vive le travail et ñu bañee nooyal tamit te xam ne yaa a un grand défi que ñu qui est devant nous Mbaye Gueye accompagne accompagné de Youssou Ndour pour un nouveau single bi nga xam ne nag képp kuy travailleur fii ci TFM war ngaa jàpp morceau bi di ko fecc di ko bëggee pour xam ne nag léegi jeex na récréation te nag teewu sax ci biir récréation bi on a travaillé pour être payé kon bu ñu bàyyee récréation bi nag <laughs> kon fu ñu jëm loolu moo dara jaaxal kon mbokk yi dañu dem kuy def récréation jël payé bu bàyyee récréation bi xanaa payé d'honneur lay jël kon payé d'honneur nañu uti ñu seeti Mbaye Guèye Faye ak Youssou Ndour sëñ sëñ Ibrahima Dieye. waaye coow yaay Awa Diagne ay coow lay bëri rek xam nga journaliste yi moom. foo nga génn leen parce que ñu wax ñu jik. waaw d'accord ñu def ko single bu sax jafe-jafe yi yeeg seendo nañu jëm a fexe réew mi dem ca kanam. rawatina fii ci GFM. bu jafe-jafe yi yeeg seendo ci àdduna fépp am jafe-jafe. àdduna de l'épée gëm ni yàlla buur bi mooy kenn ki dogal dëgg la Youssou dëgg la Youssou Youssou dëgg la ñu jéem fexe kër gi dem moom ca kanam Youssou buur kër gi ca kanam su dëgg la ñu su wayal ñu su dëgg la ñu yàlla buur bi oh. jëlee paix bi wax da bëgg a yàqal waaye booy liggéey boole koog wax doo dem. sooy liggéey. bàyyi la ko miit yow da ngay dem yow Youssou GFM moo jël paie. RFM jël paie. TFM jël paie fii ci Sénégal fi ñuy teg suñu bët. waaw waaw ni miit liggéey daal mbaa motu. ay eh waay miit. xëy leen liggéey gontu liggéey bàyyi nooyal bi war liggéey soo xëyee suba teel defuloo dara man mi ba ba mootu man yu Yusu Yusu Ndour Yusu Ndour yow liggéey TFM maa ngay liggéey RFM mbaa ngay bind l'observateur soo yeewatee dama liggéey bul noppaliku dama liggéey ndax réew liggéey la laaj liggéey la waaye dama ne ku ko def ne miit da toog miit da toog ndax boo ne miit da liggéey ne Youssou nga ne suñu bëggee suñu bëggee lu songu daal yi TFMP ah, observateur observateur bëggee lu ñu song daan eh ma ne soo xëyee suba teel jël sa journal ne xujju l'observateur lire xujju boo toogee nga déglu rajo boo toogee ba ngoon nga seetaan télé TFM RFM GFM groupe bi ñu ko jox ña liggéey ñu ngi ko dénk ña ngay liggéey kon employé yi travailleurs yi yéen a lii bàyyi leen nooyal bàyyi liggéey man a miit kon Youssou mbaa mootu ma ne miit mbaa moot man Youssou liggéey laa sant ni waay ni Youssou mbaa moot waaw ni miit mbaa moot dafa dafa sa tasa gi tas ni de Youssou laa sant wooy tas waaw ni miit mbaa moot wooy tas Youssou liggéey laa sant wuy tas suñu bëggee waaw nga songu daal Youssou suñu gën a jàppante waat Youssou suñu bëggee lu ñu songu daal Youssou Youssou. mooy noonu. Youssou Charles Faye nee na. Charles nee miit maa kon ma miit maa Youssou Ndour maa mott TFM maa mott c'est fini la récréation c'est fini la récréation information 24 télévision 24 heures journal 24 heures liggéey liggéey ba dee Youssou liggéey ba dee liggéey ba dee Youssou liggéey ba dee tas Birama tas a nabi na ba taa tas bin tas rosagi rosagi rosagi rosagi rosagi rosagi rosagi rosagi tas tas tas